Toujours dans votre acte du jour de ce 30 octobre 2024 suñu fa jógee dañuy dem foofu ca Tambacounda fekk ji fa l'ancien premier ministre l'ancien ministre de l'intérieur l'ancien ministre des forces armées Sidiki Kaba natif de la ville de Tamba ginnaaw nag bi moo am les visites dem seeti ki nga xamante ni mooy leaderu gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany nekk foofu ca prison bu Tambacounda moom daal Sidiki Kaba xamal ni que daal Bougane mi ngi affiché daal sérénité wane daal benn forme boo xamante ni daal bu rassuré ñëpp la Sidiki Kaba moo daal di dem seeti ki nga xamante ni mooy Bougane Gueye Dany ñu détenir ko foofu ca prison bu Tambacounda suñu sukkandikoo ci leaderu gëm sa bopp affiché d'albin de sérénité forme bu rassurer mon di ancien premier ministre dénoncé na daal lépp loo acte de violence la ñu noté ko ci période campagne électorale ak li nga xamanteni mo jëm ci wàllu législative yi bu mu trouvé li nga xamanteni moy mooy Bougane Gueye ci ben forme sérénité ginnaaw lool dal mom dal dina rassurer que li nga xamanteni dal moy situation biñ ko imposer du dara lu dul li nga xamanteni ni ci alarba bi la wara a ki nga xamanteni moy juge bi ci procès bi nga xamanteni en flagrant délit mu don ben combatif bo xamanteni dafa décider par rétablir lepp lo xamanteni moy mooy dëgg pour woné ni que dal dañ ko arrêté arbitrairement jëmele ko dal ci confié na ko kii di Sidiki Kaba par ailleurs mom mi di ancien ministre de l'Intérieur, mi ngi dénoncer dal li di monter jëmele ko dal ci violence bi nga xamanteni

xelam d'aldi di dellu si waat ànd ak retenu indi compréhension ba noppi sukkandiku ci peuple sénégalais bi nga xam peuple majeur bi dañu doon ñu responsable ginnaaw lépp lu ñu mën a jël comme décision nécessaire le 17 novembre doon na ay responsable politique yoo xamante pour alliance de la république nekk foofu ca Tambacounda moom Sidiki Kaba woote na également képp kuy autorité nga assurer lépp luy sécurité jëmale ko daal ci ay leader politique ba noppi daldi di woote ay responsable politique ñoom it ñu ñëw fii nga xamante ni au pouvoir au place d'aller veillé veiller ci particulièrement ci sécurité bi nga xamante ni tey leader yi ñu ngi koy dund jëmale ko daal ci Sénégal ginnaw nak ku ci nek da nga wara circuler am sa li nga xamanteni dal moy sa certitude que dara do la dal kenn du la agressé ginnaaw nag bi nga xamanteni aduna bi dafa calme jëmale ko dal ci mettre ben esprit bo xamanteni compétition la ñu tek ko ci débat d'idées wañ ko tek ci li nga xamanteni dal manam moy ay violence ak ay saga ak ay xupaté ak ay menaces muy Sidiki Kaba bi nga xamanteni ni won na ki nga xamanteni moy bugan gay Gueye rassurer na dal que sérénité bi nga xamanteni ak forme bo xamanteni ni rassurant na mom la bugan gay Dany dal di woné